déedéet boo xamee kay fa nga xam ne fa la njariñ la nekk ngay waaxu wuti ci rek mooy tax nga jariñoo aw yan famu wala ndax dana jariñ arricha goj ba lil xalili ñel aji xundooñ mooy ñel ku mar maru metti bi xëyri mat xilmaay ci lu wëgg ndox ma yaa xalili yow sama xarit nee na boo maree lool yow ab goj mën a dem wëgg ca teen ba daal di naan waaye nga téye goj ba rek léegi wutiwoo ca ndox ko itam du tax nga màndi mooy ki nga xam ne xam na itam day jëfe rek mooy tax mu jëriñu waaye bu fekkee jëfewut xam-xam ba du ko tax a jëriñu aw bay xuka wala sag jaay azada ab yóbbal li man ñel koo xam ne xasada jublu na xàjjan aj ndax loolu yaxutu dana sippi yaxutu dana sippi xan ka ci yow farda xàjjin faratay aj in warada ndem rot na nee na boo fekkoon kuy aji nga jaay ko yóbbal ba nga xam ne moom la yóbbuloo aji yow nag nga toog rek bañ a dem ndax dana tax aj wàcc la déedéet faaw da ngay dem rek aji aj door laa wàcc ba tey nag kon boo xamee jàngal ko keneen kooku jëfe ko moom kooku ay jariñu waaye yow dégam jëfewoo xam-xam ba doo ca jariñu aw wala xal yoo xam ni ndax dana jariñ ak yow sama mbokk boo woon am jàpp sabata moom sax na xan fatul walis ascam ndax dana ko jariñ bila iqaamati salaatin ci lu taxawal julli nee na boo jàppee njàpp mi ngànnaay la rek ñëkk lu taxoon ngay jàpp kon nag boo jàppee kese yem ci te taxawaloo julli maanaam julli jàpp mi ngànnaay la nga ciy jëfe la taxal ñu koy wut rek aw yan faxum wala dana jëriñ at tafxiidu daas ga wala dàggi ga li silaax ñel ngànnaay la wala su tidéet yow xaat xen ngay aji dog bi ci moom yaa saax yi sama àndaale ne boo daasee sa ngànnaay ba mu ñëw nga téye ko rek defoo ci dara loolu mu jëriñ ngaa sonn ci daas ba rek ngànnaay kay ci koy wut daas ko ba mu ñëw nag def ci la taxan ngay wut ngànnaay la waaye bu fekkee ne defoo ci dara coono kese rek la xam-xam bi noonu la bu góorgóorlu ba xam ngay farlu ci jëfe rek bu ko deful rek xam-xam ba doo am njëriñ kàllaa uyu wala déedéet falaa yenn foofu du jëriñ ahla daay ñuñ jàngoro maarifatun xam bi katratil adduwaay ci bari jàngoro ya maalam yu daawoo li fekk saafara wuñu maa la nga xamee ne jaraadaw na bi naf sim seen bopp ajal waaw walaw daawaw ak doonte saafara woon nañu loo fan ay junni fil waraa ci mbindeef yi nee ku am jàngoro faj ko rek moo koy amal solo moo koy jariñ waaye bu fàttee jàngoroom walbatiku nag di fajal ñeneen seeni jàngoro bu fajalan ñu baree bari ay junni junni te moom fajuwut moom ci boppam it ñooñu ñooy wér rek ñoom ña faju waaye moom ci boppam faj gam faj ñooñu rek lu tax mu daldi wér te fajuwut maanaam kon xam-xam bi bu ko xamee bu ko jàngalee ñu baree bari ñooñu xam ko jariñoo ko ñooñu jariñu waaye moom xam nga mu ko xam jàngal leen ko rek waaye jëfewu ko du tax mu jariñu ca inna ziyaadata xulumil habdi naka doliku xam-xami jàmba bila siyaadati xudan ci lu doliku jub ka suhuri ni ki dëddu siyaadatul box di doliku sori la minallaahi ci yàlla alxalimi aji kawe kama ataa ni ki dikkee bi ci loolu xadiisul mursali ad yusuf kañu yónni salla yal na dolli tedd nga wa sallama te dolli wóolu alayhi ci yonante bi almursilu aji yónnee ja wal aali ak ñoñ ña wa saxbi ak saxaaba ya allazina ña nga xam ne faddiloo gën a leef na leen nee na jaam bi bu xam-xamam dee yokk rek ak ragal yàlla am aku dëddu addunaam aku njubam na yokk ba tey waaye bu fekk waaye bu fekkee ne xam-xam baa nga yokku te ak jubam akuk wan gannaawam lu bokkut ak yàlla yokkuwut nga xam ne kon moom jaam boobu daa gën a sori yàlla boromam rek doliku xam-xam daal te ak jub akuk dëddu yokkuwut tegtal la ci ne jaam boobu dafa gën a sori yàlla boroomam haza jàppal lii wa inna sayda naka rëbbu yaa xalili yow sama xarit bila silaaxin ci ludul ngànnaay fialatul jahooli defiinu ak réeraagon la maanaam defiinu ku xamul dara la li kaw nihaa nag moo nekk ci yax bi waaye dafa mel ne li kaw nihii moo gën a yelloog as sayda li kaw nihii ngirum nekkam isaa atal aada bi di ñaawaluk ay teggiin maxal ilaahi ànd ak buur bi almalikil arbaa bi ki aji moom buur yi li anna milkahoo ngir naka ak moomam moom rëbboo rattabahoo toftale na ko moom yàlla jàlla màgg na xalal aadaati ci kaw aada ya kama say ati na mu xalsata dikke na la wóor ne kat jóg ne daay rëbbu ji te yoroo ngànnaay xanaa rek yor loxoy kese ku dof ku xamul dara moo koy def ndax yàlla moom kum soob sax mu jekki-jekki may la la nga bëgg te doo jóg sax fa nga toog ni kii bu fekkee daa bëgg aw rëbbu yàlla mën na koo jox aw rëbbu fa mu toog te du jóg di ko wuti waaye nag li ci ëpp yàlla lu mu lay defal da nga koy jaare ci sabablu mooy jaare ci bunt ba nga xam ne ca lay mayee loola wut kem sa kàttan bu àndee ak coobareem mu defal la loola su àndut ak coobareem it coobareem rek lay jëfe nga xam ne soo bëggee aw rëbbu da ngay wut ngànnaay lu ñaw jóg nag seeti fa nga yaakaar ne fa la rab ya nekk nga rëbboo fa bu soobee yàlla nag mu defal la nga am la nga bëgg bu ko soobee bu ko soobul itam mu bàyyi ba tey nag ab jaam bu bëgg ngërëmal boroomam daa mel ne rek ku jóg di rëbb ji war naa wut ngànnaay te ngànnaay li mooy xam gu wér a wér yoonu yàlla gannaaw bu xamee yoon wa itam mu jóg nag aw ja waaye bu xamee yoon wa ba noppi toog nag bu soobee yàlla day mën naa jekki-jekki may ko lam bëgg waaye yàlla moom ay mbirum da ko sàkkal aw yoon woo xam ne rek ca ngay aw moom daal na xam yoonu yàlla jóg aw ca kem kàttanam te yaakaar nag yàlla gàttandu ko moo tax bi mu nee jóg di rëbb ji def loxoy kese jëf yi nu ku xamul dara la mu ne waa mu ne ku ko def sax ñaawal nga teggin lool sa digganteeg sa boroom ndax dagam xam nga ne yàlla moom leen lu ne sàkkal na ko bunt boo xam ne soo ko bëggee ca ngay aw yow nag awee ca ba noppi bëgg mu defal la loola loolu ñaawal teggin la ba tax mu ne am aw rëbb yàlla da koo teg ci aada ne nii ngay def nii ngay def nii ngay def ba am waaye nag tëb tëb rekk am te wutoo sonnoo yàlla mën na ko waaye nag du saa yu nekk rek mu defal ko jaam bi falaa tasid kon bul rëbb ji bilaa silaahin ci lul ngànnaay xoddi da bopp ñawaleef na ko aw taxudanhu wala ngay jàpp ngànnaay la duuna saydin ci lul rëbb abadan mukk bal li fi nekk ijmaxan na nga boole axda silaahin jàpp ngànnaay wastiyaadin ak dem rëbb ji wabdulan na te nga joxe jux daka kem sa kàttan tax tawi kon nga làq almuraada nameel ga kon nee na bul ne daay rëbb ji def loxoy kese waaye nag bul wut sa ngànnaay ba jekk ba rëbb rekk des nga toog bañ a dem rëbb ji da ngay boole yaar yépp wut sa ngànnaay ba mu ñëw nga jóg nag aw ca yoon wa fa nga yaakaar ne la nga bëgg fa la am nga def nag kem sa kàttan yàlla mën laa defal tawfiq nag nga am jàpp loolee ngay rëbbu yoonu yàlla noonu la mel bul jéem a jëm ci yàlla te xamoo yoon wa gannaaw ba nga xamee yoon wa itam bul toog rekk bañ caa aw da ngay boole xam yoon wa ak jóg aw ca te séentu nag yàlla gàttandu la yoonu yàlla nag ni ko sëriñ bi daan gàttale saa yu nekk mooy rekk taqoo al iman al islaam al ihsaan maanaam gëm te sax ci jëfi ndigal bàyyi tere te yàlla rekk tax yett yi rekk mooy yoonu yàlla laakin waaye salaamatul mucc minal xuruuri ci ak waru la xamru rabbi dunduk sama boroom mooy sama ngiñ maanaam rek giñ naa ci dunduk sama boroom azahabul umuuri moo di gën jaa jafe yi mbir yi naxoodu dana nu muslu bi rahmaani ci aji yërëme ji min hu ci moom abadan faw wa kulli ma ak lépp loo xam ne yajiti bu dana ñoddi shaxsan jëm lir la daa jëm ci alkande waxoon na ko mu dellu ko baamuwaat ne mucc ci woru day moom mi ngi waat ci yàlla boromam ne moo gën a jafe ci lépp lu jafe woru mooy di sonn ci loo xam ne daayes na ci jariñu niki daayes na ci am paju aajo ak ngërëmul yàlla waaye nag ci biir yëngatu ba am na lu ca dugg loo xam ne yàq na ko te yow yëgoo ko nga xam ne yaa ngi defe ne lii nga yëngatu lañ ca daan yaakaar démb bari ca sonn da nga ko ci am te fekk na am na lu ko yàq ca biir te yëgoo ko loolu moo di ak waru moom nag nee na doomi aadama mucc ci lu jafe-jafe la moo tax mu dellu ñaan yàlla musal nu ci xeetu waru musal nu ci lépp luy yóbbe nit alkande wa cheikhuna sunu sëriñ al mujaddidu kay aji yeesal diine al ghazali te moo di al ghazali bayyana biraloon na am raxoo mbiram ma bila ishkaal ci lul lënt fanzuru nang ko seeti fii kitaabihi ci téeréem ba al ixyaayi mooy ixyaawu xulumi diin tajit fu kon nga fekk ko mantooran muy lu ñu wesar xalastifa in ànd akuk matale nee na boo jàngee ixyaaw xuloomi diin bi al imaamul Ghazali def leeral na ca bu baax a baax xeeti waru yi ni mu baree mu ne kon mën nga koo seeti da nga gis moom da koo wesar andi ko muy anam yu baree bari wa aktharul afaati li ëpp ci gàkk yi min xawfil fata mi ngi tukkee ci ragaluk cam si zaman aw ŋàññ waxu bihi akuk soppam imtidaaxan ak tàgg sabat akuk sax na li ëpp ci li yàqal nit nag mi ngi bàyyikoo ci yaar bëgg ku ko tagg ak ragal ku ko xas bu xasee bëgg tagg ragal ku ko xas moom daanaka rek lépp lu koy yàqal dal nay am buntu bu aw ba jàll si ci moom kon nag nay jéem a séentu rek taggu yàlla tey moytu itam ŋàññuk yàlla te bañ a bëgg tagg wudul taggu yàlla bañ a ragal xas wudul xasu yàlla tumal mahabbatu topp sopp li ci duniyaa ñeel jële àdduna laxaa ñeel na ko arbaxatul arkaani ñeenti ponk raaxi na nga sàmmonteeg ku laxaa képp ci ñoom awwaluha aji jëkk seen almaalu moo di alal wataaniha aji ñaaril seen ak taxaamu moo di ñam wa ba adoxoo nekk na ci gannaawam alkalaamu wax ba adoxoo nekk na ci gannaawam almanaamu nelaw bëgg àddina nee na ci yent lay feeñe bëgg alal mbaa bëgg ñam mbaa bëgg ay wax mbaa bëgg ay nelaw yent yi nga xam ne dara mënu cee ñàkk muy nelaw ak lekk ak wax ak alal joo fajee soxla yent yi ci la bëgg àddina di feeñe ngam cay feeñe mooy fa man ahabba ku sopp waaxidan benn min xaa ci ñoom bila darooratin ci lu dul lor saxiixatin ju di aji wér fii maa ca la nga xam ne jalaa feeñ na faqad ahabbaha kon sopp na àdduna yent yi moom nee na ndegam mënta ñàkk soo ko bëggee rek ngir faj ca lor ba mën a jaamu yàlla mbaa am loo ci bëgg loo xam ne yàlla dong nga ci bëgg a liggéeyal moo xam alal jee moo xam lekk gee moo xam wax jee niki bu dee nelaw yi nga yéene ca amug wér ak kàttan ak cawarte ba mën a farlu ci jaamu yàlla wax ji itam nga sax ci tudd yàlla ak lépp luy andi tuyaaba ñam itam ndegam mënta ñàkk booy lekk rek am ci yéene yi wér ak jàmm ak kàttan ak cawarte ba mën a jaamu yàlla alal nga jublu ca am lu lew loo mën a faje say soxla lu ca topp nga jëmale ko ci wut ngërëmul yàlla kon yent yi mënuñoo ñàkk lu ci jaam bi bëgg rek ngir faj ca lor ak lu ko may ngërëmul yàlla kon loola bëgg yàlla la waaye du ak bëgg àddina waaye lu mu ci bëgg nag te yi demee noonu taxut ki bakkanam rek mbaa àdduna rek mbaa bànneexam ak yu demee noonu rek kon su boobaa àdduna ci boppam la bëgg li amal maal ngir nag alal yottu xii day bewloo alal moom day tax a bew ni ki xaaru na nam bew woon rek xam ne nit ki bu ñàkkee xamaguñu nu mel dëgg-dëgg bu amee ba noppi lañu door a xam nu mel kama yun si ni ki fàtteloo alkara nelaw mooy kara bi firi ngëmeen rek arrijaala góor ña daanaka kuy nelaw ak ku faatu ñoo yemoo waaye nag bu fekkee ne bu nelawul day nekk di fooga mooy yàlla moom dem tëdd nelaw moo gën ci moom kon bu nelawee loo xam ne mën naa sàmm wérgu yaramam rek nga taxaw temm ci lu koy jëmale ci boroomam amat taxaamu daal ñam fa huwa moom yoorisu dana yóbbe alfata jam sa xasaawatal qalbi wa wuqol idaama usbita ndeem saxaleef na ko ñam muy lekk waxoon nañ ne mënta ñàkk faw na ngay lekk loo xam ne dana mën a sàmm sa wéru yaram waaye nag nee na ngay moytu saxoo regg saa yu ne xëy na sax gindi rek regg moom mën naa bañ a andi lor ju bari waaye bu fekkee ne nit ki du xiif mukk mukk fu mu toll ci reggaay lay nekk day daal di fooy xol bi wow xol bi wow mooy suñ ko waaree du yëg ne ñu ngi koy waar bu rombee loo xam ne xol bi waroon na cee jeex du ci yëg dara dara dara moo tax kon nay moytu saxoo di regg saa yu nekk nay def rekk balaa lekk mu wóor ko ne xiif na te bu dee lekk itam balaa regg daal di bàyyi amal kalaamu daal wax fa huwa moom yul hii dana soxlaale in katura ndem bari na bi xëyri zikri dil jalaali ci lu dul tudd borom màgg ga fa yadurru te muy lor wax itam day tudd yàlla rek mbaa wax ju am tuyaaba tey moytu baril ay waxam ci lu jëmul ci tudd yàlla ak tuyaaba ndax wax ju bari jooju day indi xol bu wow moom it di indi yeneen yàq-yàq yu bare bare suma àlla man na topp na nga xam ne ànd suuf da naka dëddu fiihaa ci àdduna xayru daxirat mooy ngën ji ndaxanteef fatan bopp ascam yux fiihaa dana ko nabbu xamal ne nag dëddu àdduna moom lu waaye di yank di ko denc ngir ëllëg na xam ne dëddu àdduna moo ci gën moo ci ëpp solo bu ëllëgee fa kullu man képp koo xam ne summeetu def na ko bismi zuhdi ci turu dëddu fa huwa kon moom baam dooxun ku ñu tagg la bi kulli majidin ci bépp tedd nga ku ñu wax ne ku dëddu àdduna la tamit lu wër boole ca xamal ne kon tagge nañ ko ci lépp lu baax mooy xamal ne kon lépp lu baax rek nekk na ca moom wa fii nekk na ci dëddu àdduna raaxatul fata noflaayu cam sa at daaree ni ci yaari kër yi bil xal bi ci xol wal badani ak yaram duuna may ni ci lul fen bu xasee dëddu àdduna rek nee na da nga am noflaayu xol am noflaayu yaram amul werante da nga ko am da nga am noflaayu xol am noflaayu yaram fii ci àdduna ak fee nga jëm ci àllaaxira innal lazina naka ña nga xam ne zahidoo dëdd nañu fiihaa ci àdduna abadan faaw humoo ñoom xaqiqatul mulooki ñooy dëgg-dëggi buur ya laa fanada amul benn xeetu fen ci loolu ne ñi nga xam ne ñoo wan gannaaw lu bokkut ak yàlla ca dëgg-dëgg ñoo di ay buur ndax buuru àdduna moom fu mu toll di gis lu mu bëgg te du ko mën a am di bëgg yu bare bari yoo xam ne du ko mën a am di bari lu ko naqari te du ko mën a faj nga xam ne kon buur ci àdduna moom mooy rekk ñi dëddu àdduna maanaam ñi dëgmal seen boroom wan gannaaw lu bokkut ak moom nga xam ne biñ dee yëngatu ci àdduna itam ngir ngërëmul yàlla tax waaye du ngir àdduna xum ñoom allazina ñooy ña nga xam ne nazaroo setantal nañu wa xaqaloo te ñu xellu xum ñoom allazina ñooy ña nga xam ne i'tabaroo xalam nañu wa faddiloo te gën a leef leen ñu dëddu àdduna daal mooy ñi nga xam ne ñoo seet ba xam àdduna ni mu ñàkki solo daal ci waaru far dëgmal ëllëg alaxiraat ngërëmal borom ba dal di bàyyi gannaaw àdduna wa fil xadiis nekk na ci xadiis anna ahlal jannati naka ñuy ajana soo ci tàmbalee nag muy inna ahlal jannati adnaahu moo gën jaa suufe seen darajatan ci daraja fil minnati ci xéewal xabdun ab jaam lay doon loxo boobu ñeel na ko alfun junni minal xuddaami ci ay surga waaye bu zawjaatin ak juróom ñaar fukk ak ñaar ci ay soxna bilaa xaraamin ci lu aw naqara dafa indi addis bi wane ni àjjana wuuteeg àdduna bu ñu demee àjjana ka fay gën a suufe daraja ka cay gën a néewle xéewal lu mu néewle néewle ay soxna dana ci am juróom-ñaar fukk ak ñaar lu mu néewle néewle ay surga yu yooyu ci waawam dana ci am junni ndegam nag ka ci gën a néewle xéewal mooy am loolu kon ka ci gën a bari la xéewal moom kenn xamut la muy am nu muy toll tumal bawaaxisu topp way yane ya topp yalay yan maa yi nga xam ñoo lay sóob xale zuhru ci dëddu to xaddu def na leen lim xam sata asiya yuy juróomi yëf la daamoon fakka nga xam ne xad naqad gëstu na xam-xam yi nga xam ne ñoo lay sawarloo ci dëddu àdduna maanaam daal wan gannaaw lu bokkut ak yàlla juróom yi la fanaa uha moo di ak jeexam wa suxlu ak soxlaal ga lil xoloo bi ñal xol ya xanit tafakkuri walis xalaat maxal xoyoo bi ànd ak sikk ya ba ci jëkk mooy jeex gi muy jeex moom àdduna nga xam ne doon tey doon na lu am am solo it ndegam day jeex rek lépp lu mujj jeex moom amatul solo ñaareel bi mooy soo xasee bëgg àdduna day gàllankoor sa xol ba doo mën a xalaat lu la amal njariñ ba noppi nag sikk yi nga xam ne moo nekk ci biir àdduna doo ca mën a mucc su fekkee ne wanoo gannaaw àdduna moom lu bokkut ak sikk yu bari yi nga xam ne moo ci nekk faaw àdduna gàllankoor sa xol ba doo mën a jëmale sa xalaat ci luy am njariñ tey mbaa ëllëg wa annaha ak naka moom tan xusu dana wàññi xinda binaa fa sunu boroom daraja tan daraja li man ñeel ka nga xam ne rakki na jéng na ilayha jëm ca moom wa an na tarkaha ak naka ak bàyyeem yakun dana nekk xurbatan di dolikuk jegeñ mina illahi ci buur bi laa takkun bul nekk za raxabatin di boroomuk xemeem àdduna ñetteel bi mooy wan gannaaw lu bokkut ak yàlla muy àdduna ak li ci biiram te dëgmal yàlla day tax nga gën a jegeñ sa boroom te nag ñàkk woon gannaaw àdduna muy ak bëgg àdduna day wàññi sa daraja fa sa borom donte sax amoon nga fa daraja itam su yàlla seetloo ci yow nga jeng jëm ci àdduna lu mu néew néew rek fam la tegoon faaw rek mu daldi wàññi ko kon ñetteel bi mooy dëddu gi dala yokk ak jegeñ sa boroom te ñàkk gi dëddu day wàññi sa daraja fa sa boroom wa mu jibun te aji waral la aydan ba tey xulu wal martabati kawek daraja nga doon ci ëllëg la dal illaahi fa buur ba ni am amul moroom matalabatan ci càkkutéef fi darajaati ca daraja ya wal wuqoofi ak taxaw ga fil xumoomi ci njàqare ya wal xabsi ak téye ga téye wala tëj wa suaali ak laaj ga xan shukri naayimi wali sant xéewal ga ñeenteel bi mooy dëddu gi day tax bu ëllëgee ca alaxira yàlla teg la ci kaw daraja ju kawe kawe kawe ba noppi tam nag xeeti njàqare yaak tiis ya yow dara du la ci jege téye ga ñuy téye nit ñi di leen laaj ba xam ndax santoon nañuy xéewali yàlla yi ci àdduna am déet yow doo bokk ci ña ñu téye kay laaj yëkkatik martaba gi mu wax nag moom ci àllaaxira lay doon ba noppi nag yàlla musal la ci téye ga ñuy téye doomi aadama yi di laaj ba xam ndax santoon nañ xéewal ci àdduna am déet ñu amit yi sak njàqare yooyu yépp nga mucc ca loolu mooy ñeenteel bi mu des nag wayoo jibu tam yi waral ar ridwaana ngërëm wal amaana ak kóolute min suxtihi ca meram ma moom yàlla fii kulli xawlin ci mépp tiit xaana moom teew na bi ko juróomeel mooy dëddu àdduna dëgmal yàlla day tax am ngërëmul yàlla tax a mucc ci merum yàlla nga xam ne bu yàlla meree jaam ñi bay indi lu metti itam moom dana ca mucc insha allah te law lam yëkkun doonte nekkutoon fii ci dëddu gi siwaa ridwaanin ndare ngërëm lëxoo ñeel yàlla la kaana kon mu nekk kaafiyal insaani di aji doy nit nee na sax ci gàttal bu fekkoon ne li ñuy amee ci dëddu du dara lu may ngërëmul yàlla nga xam ne ngërëmul yàlla dong dong lañ ciy amit loolu doy sëkk sëkk ba tax jaam bi war a fexe ba dëddu foofu nag fi la yemale albaabu al awal bunt bu jëkk bi bu daal tàmbali nag albaabu li mooy bunt bi ak taani bi aji ñaareel fir rada ili ci caay caay yi daa bëgg dugg ci buntu ñaareel bi leeral ci bu baax a baax xeeti caay-caay yi nga xam ne doomi aadama dana ko di amee tam koy tee maneek boroomam ilam xamal xabaana yal nanu may allahu yàlla xayra xaafiyatin gën ji jàmm xayra xaafiyatin doj du aju dog fii majmaxi daare ni ci mboolem yaari kër yi mbaa nga ne ci dajewukaayu yaari kër yi xamal ne an nar rada ila naka caay-caay ya mina dunóobi ca bakkaar ya moori satun aji sabab la lu waral la xasaawatal xulóobi wawuk xol ya katratu xaasiinug bari tufdi dana àggale ila shaqaawati jëm ci texee di wa tardi akuk dàq wal xirmaani akuk xañ wal xadaawati akuk noonoo dafa ñaan yàlla boole nu may ngën ji jàmmi adduna ak alaxira joo xam ne du am yemukaay mu ne na la wóor ne day xeeti caay-caay yeeg bàkkaar yi day indi xol bu wow di indi texee di nga xam ne bàkkaar ak caay-caay li bi njëkk a yóbbe nit moo di xol bu wow fa mu koy mujjale nag mooy texee di yàlla dàq ko boole ko ci ñamu xañ yërmandeem mu soppi ko far di noonub yàlla noonub gaay yàlla soppi ko di noonub lépp lu baax nee nañu màndarga mi ñuy xàmmee ne bakkaar yi tax na xol bi wow mooy du faaleeti def bakkaar te du bëgg a def ak topp buñ ko waaree itam du ko tax a jàjju ku sëgg ci mooy dañu ne yàlla du ko taw fi xale ak topp mbaa boog bu demoon bay topp yàlla itam du ko mën a sellal du ci am wenn neexit te loolu lépp mi ngi bokk rek ci gaafuk bakkaar ya mu sëgg am na ku wax ca gaaya jiitu jaam bi saa yu taxawee ci béréb mooy yàlla béréb ba mu taxaw ca suuf sa day diisu boromam ne ko waaw teg maa may ndigal ma wan na ko moom mi taxaw fii ci man di mooy